salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf mbokk yi yéen doon ko laaj jàppale na mooy seen émission bi nga xam ne mooy an nasihatu ngeen koy am tous les jeudi ñu si ànd ak émission boobu naka lay demee. jërëjëf émission boobu ni muy demee mooy an nasihatu mooy laaya biir laaya biir mooy la nit ki nga xam ne dafa am lu ko lënt ci diineem. Mm-hmm. te mbëgg koo xam. te xëy na mag la wala mënut gàddu gàddu dem jàngi. bu wootee ci émission bi ñu man ko koo leeral mm-hmm. ba man koo xam ba mën a jaamu yàlla dëgg-dëgg na muy jaamu yàlla man koo mm-hmm. xam dëgg-dëgg mm-hmm. émission boobu noonu la demee bu ko defee nag euh, képp koo xam ne da nga cee bëgg a tàbbi am na numéro boo xam ne boo ko boo boo ci jaaree da nga ci mën a da nga mën a déggoo ak ñun man faa dugal sa laaj muy 77 861 53 25 Seydina Ousmane Soro ngeen di jokkool mu mën ñu koo jot li ñu mën cee indi ay leer incha allah ci kàttun jërëjëf sëñ Tamsir ni mu ko waxee noonu rek lay demee tous les jours muy alxames incha allah rabbi maanaam benn waxtu ak genn wàlla lay doon fii ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 kon mbokk yi saa yu bi jeexee itam dañ leen ubbi antenne bi ngeen mën a woote joxe seen contribution incha allah rabbi ci biir émission boobu waaye lu jiitu émission bi ñëw mën ngaa woote ci numéro bi kenn ni mu ko waxee képp koo xam ne ni am nga laaj yu jëm ci wàllum diine moo xam yow mi nekk ci néegu say yow mi nekk ci liggéey bi te am lu la lënt ci sa diine asaka ak lu mu mëntu doon rek numéro baa ngi noonu incha allah rabbi ñu ànd ci sëñ Tamsir waaye sëñ Tamsir itam lu jëm ci wàllum diine ji màggal gi cante appel yi ak la caaj caaju itam eh, yow mu nga xam ne ni yaay directeur bi naka lañ ciy doxee. jërëjëf seen loolu li ñu ci doxee rek mooy. ku ne xam na ne bërëb bi am na ay yeesal gannaaw bi nga xam ne suñu faalu si la moo samp bërëb bi jël ma Massamba Ba da jiital ko mooy tax mu yaatal liggéey bi ci xool ku ne kenn ku ne bànqaas ba nga xam ne mën nga fa mu teg la fa ñun na mu jël ñu teg ñu ci wàllu lu jëm ci wàllu diine ji bépp émission boo xam day am fii moo xam ci biir kër gi la wala ci ci ci rajo bi la wala ci télé bi maanaam émission boobu loola ci ñun lay dépendre ak kañ faral dal ak tam la ñu war a waxtaane waaye tam dafa génn rajo bi ku ne xam na ne diine dafa yaatu. Mhm. moo xam dafa dugg ci wàllu màggal yi. Mhm. baa daa dugg ci wàllu cant yi. baa daa dugg ci wàllu conférence yi. Mhm. baa daa dugg ci wàllu bis boo xam ne bisu ñaan la. lépp rek loo xam bis boo xam ne bis yu demee noonu la. buñ ci jokkoo ak ñun incha allah. daañu ci waxtaan ba xool nañ nan nañ koy gën a yaatale ba ñëpp mën cee jot ci asalaami asalaami tv ak asalaami fm 99 point 0 képp ku ñu woo ci 77 euh, 686 94 45 émission boo bëgg. ñu ngi ñu war cee waxtaan. Mm. moo xam na nga bëgg ñu waxtaanee sa maam. baa ñu waxtaanee lenn ci sa dundu waajur. waa mm-hmm. lenn ci loo xam ne lu mu am solo loo xam ne mënut a ñàkk ñu waxtaanee ko buñ ci jokkoo daañu leeral na muy demee. Mm. ak na na nga bëggee ñu defal la ko noonu fii ci Assalaamy TV. Mm. incha allahu rabbi. jërëjëf sëñ Tamsir Gueye borom màggatabul Seexul Xadim muy émission bu am solo boo xam ne moom itam da koy def à part te bokkut ak émission bii kon loolu lépp rek yaatal diin la waaye numéro bi ni mu ko waxee noonu la képp koo xam ne ni bëgg nga ñu dalal la waxtaane histoire bu jëm ci sa wàllum kër maam ak la caaju lépp loo xam ne ni lu soxal diin la numéro baa ngi na sëñ Tamsir da nga koy baamtuwaat ñaari yoon ngir ñi nga xam ne ni ñooy déglu rajo bi man koo jàpp waaye ñi seetaan télévision bi itam man koo gis ci ba écran bi hmm. kon képp daal lu

asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Tamsir ni mu ko waxee noonu la alxames bu ci ne 17 heures laa bëgg a wax ba 18 heures demi incha allah rabbi waaye mbokk yow mi nga xam ne ni da nga ñëw fekk émission bi dina raw jàpp ko aljuma incha allah rabbi 17 heures jàpp 18 heures demi incha allah bu mu nar a benn yoon ak Assalaamy TV ak Assalaamy FM ci biir réew ak bitim réew mbokk yi yéen ñi sori soo bi itam dee leen wéy di yaatal seeni laaj ci numéro boobu jërë ngeen jëf